yaa ngi làmbaay randu baa ngi ci mun maa jooja degen ma ca ngoonan lu rëy la maa jara baax ñoo jara falar ñoo jor sax yu takk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay gisal ma làmbaay yaa ngi làmbaay randu baa ngi ci mun di ziyaare ñëpp di nuyu ku ma àndal Abdourahmane Five di nuyu waa Kër Mbaye Fall gi yëpp ku si mel ni ñoom Sayer Faye xam di nuyu waa gétt ga waa mbaar ba xam nga waa banlieue treize waa ri noo rëy ni ri xam nga di nuyu waa Kër Mbaye Fall gi yëpp mbaaw tol jazz kàmb xam nga su ma limee damay juum daal mbaaw xam nga di nuyu champion yu nekk Kër mbay Fall gi yëpp di nuyu sama grand yi ak sama papa yi di nuyu sama waa gàlle ñëpp di nuyu sama yaay di nuyu sama papa di nuyu sama waa koñ ak ñëpp fa nekk ak maire yeeg yëpp di jégalu waa ñëpp nag xam nga mooy loolu noonu di nuyu waa Kër Mbaye Fall gi yëpp nag xam nga ma limee damay juum. maa ngi wax base onze bi la bisimilah inna wal yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba maa ngi nuyu sama Serigne bu baax Mouhamed Mbacke Lor Sëñ Abdou Karim di nuyu waa Cambérène bi yëpp waa Daaru Cubu ñàgg ñàkkurop Tiwaan Pël waa Touba Marbat Ngoy Aline Sylla waa benn tali di nuyu ñi ma fekk ñëpp di nuyu sama adversaire bu baax a baax a baax. maa leen nuyu bu baax di leen fa di nuyu sama papa ak sama yaay kër gi ma nekk yaay kumba père ale am njabootam gi yëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu Cambérène gi yëpp waaw ASC yëpp tamit maa leen di nuyu zone huit zone huit bi maa ngi ñëpp di nuyu sama turandoo bu baax a baax a baax ndax day sonn si man. man maay fils de Lirou dëkk Cambérène màggee Cambérène màggee tamit daaru cubu waaw di doomu Cambérène daal ak daaru cubu man la buuse dëkk Kër Mbaye Fall xam man la xale yi bëgg ko waa man maay avenir làmb roi bëgg a nekk roi des arènes man la buuse de roi des arènes moomu tax a jóg mais du ay fils de waaw non du ay fils parce que man daa am leneen lu ma waral leeral te wax naa ko muy septième combat septième victoire war a doon roi des di ko njëkkee waxee nag fii di Bantamba TV noonu la demee nag lu mën ak moom si laa koy amee incha allah waaw foofu rek laa ko mën a teg ndax moom moo taxaw sama kanam ne moom moo mooy jël moo may affronté te xamul sax lu mu laal laal la si lépp lu ma ko gën a xam rek maa ko ëppale noonu la demee Boucher 2 xam naa ko xamu làmb rek mu ngi bëre di daan yàlla def tey ñu war a bëre làmb boole ñu te incha allah maa ngi koy dégg muy wax nag man dam sama dama daan trois ñoo xam ne mosuñu dégg mu ñal kon moom du moom moo may moo may jaaxal la si soreetul waaw te man yónni yàqamti laa ko waa dafa ñàkk sens bu ñu poussé làmb yi yóbbu ko la siis moo war na xam ne sax siisam yi fa la war a mën a yem. mais loolu baax baax bi ndax siis ma xaama siis lay dañu la set ngay amee juróom-ñaari maxaama déggoo ma de maa ngi ci six yow yaa ngi ci cinq nga naa ma ay niir yu dof. loolu booy yow xoolal man ak yow seekuñu loolu sax seekuñu ay yooyu noonu yëpp bàyyi wala première de six incha allah yaa ma gën a xam loolu lañ seek. làmb du affaire waarante man mënoo ma waar te incha allah bu la siisee di nga xam ne maa la doole maa la mën. yaa ma doole yaa mën. nice. incha allah awma lu ma lay may awma lu ma lay xof awma lu ma lay ragal te nekkul ne yow laa war a woon sénégalais laa war a woon buuse buuse bëggoo woon sax bu rek man dañ la dugal si man moo tax nga ñeme pour jël ma mais incha allah bu la siisee yow di xam ne ñeme woo ma ma topp si média yi di ma wër guddeeg bëccëg suba ak ngoon yaa ngi comprendre ah di ma wër guddeeg bëccëg ngoon am nga ma yow laa la wax yow déggoo lu ma la de yow laa la wax soo mësee gis sama interview laa la wax bu ma nee nañ ma jox buuse nañu nañ nañ jël sama li sama rëkaa ñu loolu duñ ci waxaat loolu duñ ci waxaat yow xam nga man xam naa yàlla xam na buuse aama ja sax xam na moom mu tëgg làmb ji sax xam na yeneen promoteurs yi xam nañ mën naa fee lim yeneen promoteurs yi yeneen yeneen yeneen mais loolu sekku ma ko ak yow jour ba xam nga laa sekk ak yow loolu yëpp buuse de nga doon laaj indil nañ la ko moo ngi nii bu jour ba loo mën si moom defal mais jàppal ni Boucher 2 li mu mën si yow yëpp dina ko def. te moom mooy jël ndam li yóbbu Kër Mbaye Fall drapeau bi jug si kaw. leen laa la mën a waxal leen laa la mën a waxal le 6 amoo si benn sens. man maa la wax loolu. te bu ma la jàppee lamb ji yëpp dinañ xam ne maa la mën bu neexee borom bi laa la wax. noonu la demee dëggalal sa bopp kon. dama ne la incha allah dëggalal sa bopp dama ne la yow yow Boucher 2 lamb waru waruñu woon sax di wax fii de liiru di wax Boucher 2. laa la wax dëggalal sa bopp laa la wax. yow dafa li ma def si làmb. waaw yow bouse ay bouse d'or bouse d'or yow lu ma lan nga def si làmb yow nga def si làmb yow. ñaata combat la am. yow waaw yow doo ma dimbali. ñaata combat la am mais ñu ma bëree bëree woog ñoom. nañ yeggali débat bi laa la wax. amul débat de dama ne la ñu ma bëree yow bëree woog ñoom. kan nga bëree ñoo la gën a xotteeku ñoo la. yow ki la daan digg arène nationale jos bu jaamu gën. yow dimbali ma nan la def. da laa tegal sees daan la. suñ demee Léopold maa ko daan. suñ mu daan sos. jëlu bu leer naa ñu man maa ko daan yow xam sax est-ce que nga. booy ma booy xoolal seeku ma ak yow yooyu nañ bàyyi wax si leneen nañ wax si leneen. nit ñi nekk fi moo tax. mais yow arbitre bi li ngay wax laaloo keroog si ànd sa interview ngay wër maa ngi di jàkkaaroog nga xool ma nga naan ay maa yow da neex nga naan ma ay xool bëgg nga xool xooluma la te yàlla xam ne bu at bi di nga xam ne ñemewu gisuma la sax yow tànk sama tànk tegu fa waaw maa la mun maa la ëpp doole ma doole yaa mën yaa ñëwal sax boolewuñ yow xam nga la wax bu baax làmb boolewuñ lu tax ngay bëre yoon daa am nu mu demee moo tax ñu lay jéem a jaarale si biir yow yow yow yaa neex yow xoolal muy may boppam bës yow yow yaa ngi may sa bopp bës yow man yow man dama laa xamoon yow man dama laa xam nga ma ay yaa ngi may sa bopp fils de l'heure man la am six combat la am septième bi yow la te yow laa ko sekkal du loolu yow yaa ngi dégg gis que yow blessure moo tax ma ma tourné toog temps ma tourné di bëre yow waaw yow blessure bu ma benn benn blessure promoteur yebuma di ma woo naa ma buuse deux <laughs> léegi yow foo toj. ñaata combat la tojuma fenn laa la wax. ñaata combat mais dama ne bu du woon blessure laa wax promoteur sañu ma woon a poussé deux. jeex na kon da am gàllankoor. waaw moo tax ma sa gàllankoor boobu noonu lan la. ba pare bu la siisee am naa gàllankoor dama ne la nga lijjantil sa gàllankoor boobu noonu sinon naa la tegaat beneen gàllankoor. bu la siisee di xam ne maa la mun maa la. yow du ma caaxaan yow sax man yónni ma wax la ko. man dëkk moo topp sama ginnaaw yow nee la promoteur bi yaakaaru sax si mobilisation. noonu la demee ba jour ba. kër Mbaye yéen a ngi hmm. man kër Mbaye déggoo la ma la wax de. waaw yow la lépp surprise la topp waa tëj ñëpp topp ñëw nga naan ma la incha allah su ma neexee sax waa jàmm gën a. Hmm. ñooñu ñëpp dañuy ñëw laa si man lay dépendre. waaw yow na ñëpp ñëw si yow buuse sël nga ma ay nii. mais daal laalaw nañu tagg sa yaram nii di ndellu nii. kii bi laalaw bu neexee suñ borom nen du daje xeer. wax na di nga xam ni yow yaay. bu neexee suñu bu ñu simee ko rek. yaay nen bi yow lu ma liggéey la. lu ma liggéey la te xam ne moom doole caméra yi dëggal lépp dëggal ko. caméra yi tàq nga dëggal loolu yow. fils de Lirou. doo dégg man li ma la wax ni laa du ma si reculer. waaw bu arbitre bi laa la wàccee loxo man sa kaw. bu si reculer bu ma la reculer dara demee bu si reculer. waaw noonu la demee te dama bëgg nga nga man nga xool ma nga wax ak man. non mais loolu bu ko jàppee moo ngi nax boppam parce que kii xamul fu doole nekk déggoo ma daal man sportif bu xamagul fu doole nekk du ma daan. nga naa ma ay ngeew yow fan la doole nekk bala siis nga naa ma ay ngeew sa doole fan ah, aw ma wax bu bari rek palamtu bu bari rek nga ma dàq yow waaw di wër di palamtu loolu la nga ma dàq nekk si réseaux sociaux yi maa la koy woon te bu jour ba naa la ko woon kii lamb ji wax rek la si palamtu rek nga si nga si am laa la wax sa loolu ñoom ñoo koy décorer laalo la làmb ji wax ju bari rek nga si am mais yow amoo si benn yaakaar yow mii bëri si gaa nag mën nañ la yaakaar jàppale la de mais yow mii bëri si yow amoo si sa bopp yaakaar ne mën nga ma daan. laaj ko ko moom. lépp maa koy jëkk def. wàllu ne prime. maa koy jëkk def lépp. maa koy dóor maa koy song maa koy daan. incha allah wax dañuy daje. dañuy daje combat bu nee naa la nen du daje eh, xeer. Eh, chaque jour ma wax la ko. nen du tan mooy nen bi nen du daje xeer. kan mooy nen bu wow Congo bi moo fi nekk original bi ma la ko gars yi tuddee. doomu Cameroun bi bu wow bi wow bi wow bi nag. Hmm. bii bu xeere bi la. da ngay fexe indi bu dëgër beeg lépp lu indaale laa boo dalee sama kaw daanu. bii vérité bi la. nga naa ma ay ñeew. wax ji ah, jaru ko sax ndax la siis ñëw na ba pare. yow foo bi nga. bu la si waaw foo laa amul problème. mais bu la siisee di nga xam ne yow man maa la mun yow. kuy dóor jigéen di toroxal jigéen. waaw sëñ Fallou ay waxu font rek wax mais bu la siisee di xam ne maa la mun maa la doole incha allah. la demee yow ragal loolu sax dëggalal sa bopp rek dëggal. yow laa la wax boo ma boo boo ma ñemee laa ma ñemee laa nit ñi toog la rek. waaw mais yow fils kii lu may ragal si moom. kii daa sañ a xeex ak lu ma kii bu bëggee ñu samp jaaga njaay laa la wax. sañoo xeex ak man laa wax man xam la laa bëgg ngir yàlla yónni fils de oh, du ma la ngir yàlla yow laa yow. bu ma la jàppee pour daan la sax du ma la daan di nga xeex ba pare. fu mu laal si man daanu tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ fu mu laal dama ne la laa lii nga ma dàq laa la palamtu bii tax yow dajee dajee dajee palamtu bii laa la nga naa la wax bu jour de laa la bu ma la jàppee pour daan la sax du ma la daan damay xeex ak yow ba pare dañuy jure ba pare man ak yow mais man maa aay si koo xam ni daa mën si dañ ñaan daa mën si loolu parce que man ñooñu wër champion dafa war a xool kiñ naan chaque jour moo mën si lii rek kooku mu jël kooku noonu man daw ma responsabilité damay jël adversaire bu ñu naan ñëpp na moo ma mën ma jël ko defaral ko bagage gars yi xam ni lii du loolu. bu la siisee di nga xam ne bii bokku si nag. noonu la demee. bii du yooyu sa ñaata morom lañ la jox. jëluñu la naa la wax sa ñaata morom lañ la jox jëluñu la maa la jël. sa ñaata morom lañ ma jox jëluñu yow lu yoon lu nooy nga doon wut moo tax nga woon jël adversaire la wax de eh. lu nooy lan lu nooy ngay wër yow. yow gars yow man te bu la siisee wax lu ma neex. wax lu ma saf bëgg sama ñaata yoon a ngi dégg. parce que ak diw. ñaata yoon lañ ma woo ne ma. Ama Dia bëggul woon suñu man ak yow Ama Dia xamul buuse ak Fils mooy loolu noonu après la sib nii ni yaa ngi wër si alayaay di ma wër di ma laaj fu ne mais déggoo lu ma la wax de combat bi laa la daw nga ko ba sonn parce que maanaam dafay sës nga jël ko mais dinaa la dinaa la woon ni maa la mun dafay sës ma jël ko ah daw naa ko ba sonn da nga daw ba sonn xamoo woon nag lu waraloon loolu so li jëntul ba xam li waraloon jëluma la doo dégg lu waral nga jël maag lu waroo nga jël loolu sama raw si làmb ak yow fay si làmb nañ la xaalis loolu sama yoon nekk su bu la jàppee yow xam ne maa la yoo xam ne xam nga fayu ñu ma dara bu ma la jàppee laa la nga xam ne maa la fay nañ la fay ñu concerné wu mais doo ma fay ay deux cent mille ay trois cent mille. dama ne la la wax loolu lépp ma ay fils de loolu ma koy jël xeeb ma si làmb loolu ma ko def bu jour ba la wax na dëggal sa bopp ah, nga ñëw luñ la fay ak lu ñoo fayul yëpp sama yoon nekku si bu jour ree na nga dëggal sa bopp li ngay wax fii nii yëpp nga assumé ko nga xool yow bu dëggalee bon làmb ji du def ay seconde mbër yi ma bëreel yëpp maa leen song amul mbër bu ma bëreel mu jël si mbër yi ma bëreel yëpp maa leen jël si dañoo daanu kii bu ma ko songee mu ñibbi yow lu ma liggéey du pour sax yow. ngir yàlla ak yonent bu jour ba song ma. da nga taxaw nga dëggal sa bopp nee nga da ngay xeex man taxaw nga dëggal sa bopp laa la mais nañ dem waay ba xam mës nañ ko gis mu reculer waaw dafay yem parce que du ma ko reculer man du ma nekk fii di daw ay yooyu noonu nañ la conseiller façon conseiller jinne bu ne ne la xolal booy bi day ñëw de wala booy bi xolal yow teelu ko ba ñëw façon conseiller bu ñu nañ la ko conseiller laa la wax. déggoo lu ma wax de boo ñëwee. soo ñëwee soo la ma la bu ma la jël see dugg sax yow mi yaa xamul si li nga dugg. laaj ma da nga doon daw. xeeñ ah. daa mooy rek daa mooy ñu naan këccëg numéro un ma maa naroon a nekk këccëg numéro un. waaye yow yow daa mooy. mais di nga comprendre nga def ko numéro un ba xam. noonu la demee nag. wala yéen ñaar ñëpp ngeen ñëw. waaw nga am ay numéro un ak numéro jeex na. moog magam yëpp nañ ñëw laa la wax. yow yaa ngi nii di tuddee ay naan un. yow fiis fiis doom la booy. fils man sam papa laa tuddee sam bopp. ñun ay papa lañ. nga naan ma ay nii. waaw man nag yow xoolal ku jël papam tuddee ko boppam wàcc na. man man ay nii maay sa papa yow. waaw yaay sam papa bu la jouree di nga xam ni yow doo dara. yow man maay sa papa. yow bu bu jouree bu jour dinaa la ko. bu jouree ñëwal rek na nga fexe ba na nga ñëw na nga dëggal sa bopp. di nga xam ne làmb ji du yàgg. soo bëggee sax boo wàccee loo yor ñu teg ko léegi ñu bëre léegi ñu xool amaa ñoo dem làmb ja ñu xool nga xam ne maa la mu dama tiit instant nii yow instant coytu nii da ma lay indil fii laa yow ay coytu laa la wax fii xoolal mu la wax wax moom fi indi lu ma la ëppalee loolu laa bëre la wax nga looy ko lii lu ma la ëppalee doole laa ko ëpp doole laa ko ëpp te bu neexee suñu borom bu ñu jàppante ma jaay ko doole doole laa la ëpp mbaam du xar loolu nga naan mbaam du xar déggoo lu mu la. mbaam du xar te buñ jàppanteel ala ma jaara doole bu neexee borom mbaar bi. génn du muus. waay yow maa am ay nii ma la wax de. loo ko tegal fuux rek yow lii rek nga am. lekk rek la xam palamtu bi ngay palamtu nii rek palamtu bi nga am rek nga am koo ma teg si lamb ma. xeeñu ma hmm. sax ne kii maa ngi koy yëg wala ñëw rek lekk ko dem sama yoon. loolu laa sekkal samay supporters. déggoo lu ma la xanaa ma ne la du ko xeeñcu sax xeeñcu. maanaam damay ñëw rek lekk. yow tuuti nga pour jaar sama. yow du ma la ah. xeenti damay ñëw lekk. yow boo ma logee yàbbi ma. loolu ah. boo ma logee laa la wax. lii dinañ ko waxaat après. Hmm. soit ba waaye xam ko moo tax may wax ak moom nii su ma ko xamuloon duma ma toog ak fii ak moom. ba jour bi incha allah. Fils de Lirou kii est-ce que seetaan naa ko sax. ci kaw ngay plan ñëw nii man nga jaaxaar loolee ay kii naba la boo bëggee dëgg dëgg kii nii la jaaxal nii ñuy ñuy làmbat nii plange bi ngay def yaa di plange wu man nga jaaxaar loo laa la wax si yow jaaxaar loo nga waxam man wax si yow hmm. yow da ngaa sañoo waxam doo dégg ñeme woo ma nga naan ay sañoo jaaxaar loo man di waxam man da nga ma ñemewul eh, yow laa la wax ñeme woo ma defal lu la neex yow ñeme woo ma nga naan ma yow laa lu ma deful lu ma de lu ma deful. la la dal. yow lu ma deful doo ko def. yow lu ma deful doo ko def looy def yow looy def yow looy def. ma jàppul looy def. lu ma lay def bu ma la jàppee nga xam ko. mënoo ma andi yow. ma bu ma la jàppee nga xam ne maa la. lu ma de wër nomba sax yow wër nomba rek. dama ne li ma bu ma la jàppee la nga xam ne maa la doole palamtu bi rek nga ma dàq. palamtu bu métti maa la mun maa la doole booy rey naa bu yàgg. loo xam defal foo xam dem fa. rey naa bu yàgg la su ma la jàppee dama lay lekk. sëñ Fallou laa lay def nga am sëñ Fallou maam Cheikh Ibrahima su ma la jàppee nga. wax baaxul baa nga ay ñeew. bu sa doo yàlla xam ne ñeme woo. du ma dara. ñeme woo ma la bu la siisee nga xam. ñeme woo ñeme woo ñeme woo jaaxaarloo ma. yaa ngi yaa ngi sa musu xippi sa bët yi nga xool ma laa la nga xool ma sama bët yi ay nii nga xippi sa bët yi nga xool ma laa la wax sa bët yi nga jaaxaarloog man waaw yow seetaan naa ko ay làmb fekk na ma esaat bu ma xam nga des fois nga jël mbër mu naan ay kii du ma ko seetaan patati patata bu ma waxee loolu damay ñeme yàlla ay làmb fekk na ma esaat ma seetaan ko te bëri naa ak ñu ma bokkal ikiri waaw kon bu ma nee seetaanu ma ko waxuma dëgg seetaan naa ko bu baax te bu ma ko jàppee mu xam ne maa ko mun maa ko doole léegi ñi ma bokkal écrit lu ma leen def waxal waaye yow doo dégg boo njëkkee woon si man laa la man maay caat laa wax nga naan ma ay nii man maay caat boo njëkkee woon si man si écrit bi wax lu la neex defal bu la neexee jëlal dama ne sa tànk baaxul yow man maay caat laa la wax beneen tànk bi dama koy damaat doo dégg jëlal nga négocier si la neexee nga jël léegi yàlla seede na ni boo négocier naa la booy yow mi la gaa yi yërëm taxawoo ndax bu la jàppee di nga xam ne yow gaa yi dañ laa yërëm. Ah, waaw waxal waay. su ma la jàppee di nga xam ne maa ngi doole sa diggante yàlla loolu la nga problème la bouse de échange yi laa la wax bu ma la jàppee di nga xam ne maa la mun maa la doole. <laughs> yow yaa ngi nax sa bopp. yow ñeme woo ma. yaa ngi nax sa bopp nee yow Ama Dia Ama Dia mi mi tëgg combat sax damay ragal làmb ji pare làmb ji pare ñu jël si ko. Ama Dia mi làmb ji damay ragal làmb ji jeex ñu jël si ko gam yow ma la jaabee naa. du bu yàgg. dafa yor peel boo mosaan mën na koy eh, naa bu xam demal toujours ba doo fonctionner. dama ne la foo xam demal yow ak say mbokk. yàlla foo xam demal say mbokk laa la wax. dégg yàlla moo ko moo ëpp doole fuuf ñi mu àndal ak ñëpp yàllaa leen ëpp doole foo xam demal. waaw ah. su ma la jaabee dama lay eh, daan. danga may jaxase ak yàlla. ana yàlla léegi yow. nga naa ma ay ñeew nii. yow da nga gëm li ngay wax nii gëmoo li ngay wax nii la bu doole laa la wax yow ñu ñëpp. yow mi yaa fi nekk di jaay doole ba léegi. ne la déggoo lu ma la jàppee laa la wax nga am de waa nice yow. bu neexee borom mbaar bi may bu ma la jàppee gaa yi xam ne ma la bu doole. borom mbaar bi xamul la. waa nice man tamit waa Kër Mbaye Fall. Kamb Kamb. Toldias Ridis. waa yow bu waroo ma wax di ma wax ay. waaw mais nag seet loolu man paase la kii benn super lay indi esaat. làmbam yëpp fekk na ma esaat man su may jéem ay 17 car ñooy jéem ak ay bis léegi yow man damaa xamul ne benn ku benn supeer di yóbbu koo xam ne benn super lay yóbbu ba pare ngeen bëgg ko quoi di bëgg a baree boo baree li ngay bëreeg man rek nga bëggoon boo baree li ngay palamtu nag yaa ngi nii li ngay wax li may wax da ngaa li ngay wax li may wax laay jëf moo tax waa da ngay jëf bu jour a nga jëf laa la incha allah kii wax di jëf moom dañ lay bëgg waaw non mobilisation bi moom gis nga dinaa ko def comme ni ko gars yi di defee incha allah dinaa mobiliser di wax nag Ketchup bi yoon maa lay wax Matar Subatel maa lay yóbbante si moom Matar Subatel Badara Gajaga is yaa ngi dégg Pape Diouf maa ngi lay yóbbante si moom Ismaïla Bass maa ngi lay yóbbante si moom si moom ah Bébé Bass maa ngi lay yóbbante si moom combat bi maanaam mun naa ne combat royal la dañoo war a duy stade bi ba fees dell parce que roi des arènes bi moo war a génn comme ni ma leen ko waxee bi yoon nag maa ngi koy waxaat nag tey laa koy waxaat waxoon naa ko TFM roi des arènes bi dafa war a génn soxla ji bëre ji dañ ko war a financer jàppale ko financièrement nit ñi pour ñu dégg ko xam ko comprendre nga bu kenn toog di seetaan naan Ketchup kese wala kii kese na ñëpp génn jàppale Boucher 2 seen mbër grand combat laay bëre na ñëpp génn tey nag laay mujjee waxati ay waxu wooteek ay yooyu noonu senegal tey suma ma maanaam bii nii combat bii ku ma jàppalewul bu ma kenn jàppalati ma demal sama bopp xam ni yàllaa fi ne loolu laa bëgg nañ ma jàppale si combat bi incha allah ma jàpp bëreet bi daan ko noonu la demee. waaye man bëri naa grand combat ni ma def stade bi ñëpp gis nañ ko kon nekkul kii nii laay toog gars wax ay mobilisation di wax man moom maa woo ñëpp kàmbure na ñàkk rëbb ci wàllu na Parcelles Grand Médine bi di woo ñëpp tonto Pa Jibi góor a maam xaar ah ama demba yéen ñett yéen laa sas bolo gi ak gone dañoo yaakaar si man te xam nga rek jour bel gone yëpp war a génn man soxlawuma ku ma jàppale xaalis nañ jëndal xale yu bee ñu dem esaat maa ngi woo ñëpp di woo sama mag papa ngum ingénieur bi maa woo bu baax a baax a baax a baax di woo sama yaay sama papa di woo waa Cambérène bi yëpp di woo booy may àndal forom ci kanam Cambérène bàyyiwuma kenn di gërëm waa waalo alo kas v libaas nani ah maa ngi woo maa ngi woo ñëpp di woo Saara Abu Boldo ak seen waa kër yëpp ah booy may xëpp galaaj ñëpp maa leen di woo ñu gën ci jàpp sam booy mécanicien yi ah sam yi normal bi ah maa leen woo ngeen gën a jàpp ni ngeen daam def gën leen ko dooleel teel a sanje machine yëpp ñu dem esaat incha allah maa ngi woowaat ñëpp di waat Pa na ah Assane maa ngi woo bu baax a maa ngi koy woo bu baax a baax a baax woote jàpp si bee yi di woo États-Unis ku si mel ni Tafa Diop Ndiob ah Malick Fall les 45 yow moom yàgg nga ko def depuis mbapat ba tey maa lay woowaat bu baax a baax a baax di woowaat sama turandoo da si jàpp bu baax a baax maa lay wax père jàppal bis dina ñëw dinaa la fay bor yëpp incha allah si kàttanu borom bi maa ngi woo Cambérène gi yëpp forom ci kanam bi yëpp Ablaye Diop gis naa taxaw bi sañ waa Ikiri ah sañ waa Ikiri ku si mel ni Kosu Kaare président équipe bi Cheikh Thiam mbër yi fa nekk yëpp yu am combat ku si mel ni Neko Rell Papa bu ndaw waaw mutulaay ñaanal ñëpp am combat suñu borom seen combat suñu borom may leen ndam maa ngi woo Cambérène yëpp maxaas ñebe bi ah ñoom Aliou Boy forom ci kanam bi yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma kenn fàqalaan ah inter neuf maa ngi woo ñëpp di wax ñëpp nañ jénn incha allah waaw mais nag léegi nga man nag maa woo samay booy ñi jàpp na si combat bi réel sonn si nag quoi di waxaal di profito tamit Babs borom DPD maa ngi koy nuyu bu baax si combat bi Mansour Diong maa ngi koy woo si combat bi borom waaw mooy lool Fouta poids lourd maa ngi koy woo si combat bu baax Babs jàppal si combat bi grand combat la noonu la demee di nuyu sama waa gàlle ñëpp di nuyu Rahman Pëlëg Daasit Lamia Jab sama boo yëpp ñoom Abdou Fall su ma limee damay juum xam nga waa mbaar bi yëpp ñoom Assane Fall ah ñoom Fallou Sey ñoom Jamle Xaa ñoom Naaz gaa yëpp waa mbaar bi yëpp maa leen di nuyu di sama su ma limee damay juum Issa maa koy nuyu borom mbaaw di nuyu waa Kër Mbay Fall gi yëpp waa mbaaw xam nga ale ale doom nday Zambala maa ngi koy nuyu bu baax a baax bu baax a baax la di nuyu Boy Niang numéro 2 Kër mbaay faal xam nga di nuyu sama ñëpp sama ñëpp sama ñëpp nag su ma sama ñëpp nag mooy ñi ma sama biir xol. waaw am na ñoo xam ne limu ma leen mais ñu laa bëgg te bëgg nañ ma di nuyu tamit sëñ Modou bu baax sama doom nday moomoo Taylor di nuyu ñëpp waaw di nuyu waa Pax Karo bi ñoom Bàcc Omar Maguette Thiam mafia boobu Baye Abdou ah gars yi nañ jàpp si combat bi sama mafia géejewaay bi génn ñoom Moussa kese Ahmed kese gaa yi nañ génn ma dikke ah gars yëpp nañ génn man waaw ñëpp laay promoteur ah. seen laay maa lay woo si combat bu baax a baax a baax. sama yaay nag maa ngi koy nuyu bu baax si seen laay jàppal si béy bu baax a baax. rendez-vous à la six doomu Cambérène yëpp. waaw bi combat bi tamit sa combat la Amina. yaa ngi may sama premier combat ba léegi Amina. waaw bañ a di la wax nga ñëw jàpp si combat bu baax a baax maa lay woo bu baax a baax balaat moo nami balaat xam bu baax a baax a baax dooraat la booy xam nga balaag bu baax non non damay dóor la nekk sama waay la sama doom ndey la du ma ko nëbb si tele sax ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaw noonu la demee nag waa di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp waaw. yu tàkk ñoo jaraway te ñoo dim waagu ñaay